الحمد لله الجزيل النعمة على مراد ما nga dem tibb la nga bëgg nga nga def ko ci mu jeex tàkk fóotu rek te nag li ciy dimbali nit ki mooy jëf ji képp salaalu salama nee na tabe garab la gu sax àjjana banqaas yi ñu ngi ko yor ci àdduna cépp ku jàpp ci banqaas yi bu garab bu car buy dellu ca garab ga àjjana lay jëm fa ngay delluwaat waaye naka noonu tamit maanaam nay garab la gu sax àjjana képp koo xam ni ay ay ay ay banqaasam mi ngi wàcc tiim àdduna képp ku jàpp ci garab bu nay buy dellu sawara da lay yóbbaale asaxaau shajaratun fi fi asjaaril janna afsanuha mutadaliyatun fi dunya képp ku ci jàpp bu ëllëgee da lay dellu foofu borom Tuubaa nee na ku tabe dangay jege yàlla jege yonent bi jege àjjana sori sawara waaye képp ku nay da ngay sori yàlla sori yonent bi sori àjjana jege sawara te borom Tuubaa nee na alal ji jarul nay yàgg yàgg da ngay dee bàyyi ko fi te bis boo dee ba ko fi yàlla danaan kat ñu ngi doon jël leen ko te bu leen ko ci sant maa leen ko jox joxu leen ko moo tax mag ñi daan ko tuddee wër sëg wër sëg day wër ay sëg rek boo demee ci sëg ji da nga gis koo xam ne da nga milliardaire la woon alal ja na ko ba ngay wëri keneen ba ko paree mu suurati ko wëri keneen kon wërsëg mooy luy wër ay sëg rek boo demee ci sëg yi da nga fa fekk ay milliardaires dul jeex li léegi nag li la ci yàlla jox kas néew li la ci defal tawféex mooy dépense ko ci yoon yàlla képp wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yaatiya ahadukumul mawtu fa yaqulu rabbi law laa axartani ila ajalin xaribin rek suñu borom nee na bu ngeen dépensé lu alal ji ma leen jox nee na da ngay dem bay bëgg a faatu nag naan yàlla ay waay suñu borom law laa axartani ilaa ajalin xaribin ay su ma mayatoon ab diir bu gàtt rek danaa saraxe de danaa joxe asaka danaa ci dimbali ci yoon yàlla su borom ne la faatu moom bu ñëwee jeex na kon tawféex gi mooy fexe ba tabe ndax ab yéeféer bu tabee du dem sawara waaw koo xam ne gëmul yonente bi saa waaye tabe gi mu lambool tax na suñu borom tabarak taala du ko lakk daf koy yóbbu laxlaaf kon jullit bi tabe àjjanaam kenn kenn du ko sikki sàkk kon kon nag nañuy ñaan suñu borom mu dimbali ñu defal ñu tawféex ba li ñuy jot a am ñu koy mën a delluwaat ci sëriñ bi ndax suñu waaw ci da ko jëf ci màggal gi ndax màggal gi moom maanaam mooy rawante bi ndax fi mu toll nii ëllëg àjjana amul jàng alxuraan amul julli amul woor amul ay aj màkka amul benn coono amul altina amul talaata amul janvier amul février amul été amul hiver amul dara amul doo xàmmee lu xam day mel na benn bis rek waaye daal da ngay toog ba yàgg rek gis nga ni toog ne ba yàgg kilim kii bi tàkk nga sentir loo sentir loon toog ba yàgg dara xewul bañee ñëw nga gis ni am na lu xew café ñëwul woon mu ñëw nee na bu ñu demee biir àjjana 18 safar bu jotee nee na àjjana borom da koy yokk ba gaay naan waa lu xew ñu ne teel a xara ci yooma sabti samina ashar li xidmatil muxtaari fi shahri safar waa ana gàmmu léegi da koo xëcc ci biiram xëcc kasu rajab lëretul xadri bis yooyu yëpp doo ci dégg benn kenn du dégg ñu ne tey lañuy màggal yeneen saa ca àjjana kenn mosu koo dégg waaye benn bis kese mooy exister ëllëg àjjana te mooy bisub Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul gi kon koy bis boobu ku yeewu war caa feeñ ku yeewu war a feeñ ci bis bii ba yëg loolu kese mooy taw tawféex bi kon nag noo ngi tubaat baax màggal dafa dafa yéeme <laughs> maanaam mbégte màggal moo yéeme barke borom Tuubaa maanaam di joxe te doo ko yëg waaw loo joxe xeeb ko loolu dafa yéeme ndax fi mu toll nii at moo ñëw maanaam fi mu toll nii mag maag dawar ñu ngi koy màggal gi maanaam safar maanaam jéegooy jilim lay dox moom nga fi mu toll safar bu njëkk màggal ñun calendrier la daan xool rek ñu bind màggal la nangam décembre waaye fi mu toll nii ñëpp ay séentu weeru safar di ko yàkkam ay jour ji moyen deux cent jour ji moyen cent cinquante loolu màggal rek rek am jour ji moyen waaye leneen lu dul loolu moom da ngay xaar mu agsi kon nag euh, yàlla na suñu borom defal tawféex ba maanaam lii xew ci bis bi am na genn góor gu ma doon seddaan fan yee mu ni sëñ Saliou de weeru safar bu mosaana teru ku mosaana ñëw ci moom di ko wax soxla danaan la bu fekkee ne li ngay wax jëmul ci safar màggal bàyyi ba mu jàll na ci pasos boobu góor googu ku dundoon moom la maa ngi ko nii mu koy wax mu ni sëñ Saliou àggoon na ci safar foofu maanaam bu weeru safar mosaana teru gan ñu mosaana am xam nga borom Tuubaa daanaka bu tëjoo njaareem danaan ku yor alxuraan daal sëriñ bi maanaam doo ko tax ubbi ñi fa daan ñëw yor alxuraan kese moo tax mu daan ubbi ñëw di leen teral su paree dugaat ci biir waaye sëñ moom boo musaana ñëw lu mbooloo mi bari bari bari kuy ñëw di wax ci màggal ga ak safar yow lay recevoir ba pare ñeneen ñi daan leen bari leen ba safar jàll kon kooku am na fu mu ko toll koo xam ne daana wax naan jaay kër du sama ittee waaye xelam fenn la ci demee muy màggalu borom Tuubaa gi ñëw te amagul lu mu ca jëf kon na bi am na fu mu ko toll jaay kër ci doomi Sëñ Tuubaa waaye xam nañ bis ba fan toll moo tax muy am ittiwoo ak di ngéejoo su amul lu mu def ci màggal gi jaay ak këram def ko ca te gis nga lañ ko doon waxtaane fële loolu lu mat di settantal la gis nga investissement bi gën a gaaw te gën a assuré te ëpp njariñ mooy investir ci Cheikh Ahmadou Bamba gaa yaa ngi jënd nga fi mu toll gaa yaa ngi jënd bis 30 million nga jënd ko tey muy jóge fii dem Dakar di horaire accidenté tey bis ba yàq sa 30 millions da koy yàq léegi yow mi yor xaalis gis nga accident boobu de te yaa ngi demande di jënd bis investissement boo gis am na am na risque boo jël nag bu dee ganaar yi dégg nga sëñ Daaru nee na xam na ci dara da ngay dugal 1000 ganaar ñu dee nga perte mën ngaa ubbi ab ab ab grossiste sax tëj gaa yi ñëw tàjji ko di mu tàkk marché bi li fi tàkk bari na. waaye Cheikh Ahmadou Bamba laa investir di ko ñàkk ah loolu kenn mosu ko dégg waaye si Cheikh Ahmadou Bamba laa investir ñàkk borom tubaa nee na ku ndigal tax a naaja boo jógee dabe kon nag investissement bi gën mooy bi ngay jox borom tubaa ndax fi mu toll nii ñun ñëpp daanaka kenn desetul dara moom waaye bu ñu delloo la borom tubaa di indiwaat ndax safar xam nga lu tax mu neex a euh, ganale gan la goo xam ne buy ñëw mooy indaale li nga koy bendale ñun ñëpp li ñuy téye ci safar duñ ko téye ci tamxarit duñ ko téye ci gàmm duñ ko téye ci beneen weer safar rek lañ koy am kon kay moo indaale ay xéwalu boppam kon yàlla nañu saa borom defal tawféex ba maanaam lépp lu ne ci bis bi ñu mën koo jariñoo te bis moom ngëne la ci nekk ak xéwal bañ na ko ba màggal bu ñëwee sawara sax moom dañuy fay matt ya waaw dañ koy fay moom sawara dañuy fay sawara bi mu fay taxaw day taxaw gaa yi nooy tuuti xam ne nag màggalu borom Tuubaa gi ñëw na kon nag yàlla nañu saa borom defal tawféex ñu ngi jégalu bu baax ci kàddu di ziar sëñ Wakaana <laughs> waaw ñu ngi koy jaar bu baax suñu mbokk taalibe ah ah mooy màggal <laughs> waaw mooy mooy jëf ji ndax màggal moom jëf rek la nga maam Cheikh mos naa euh, gis mag euh, am ñuy jàng alxuraan mu daal di jël benn paan jox ko mag ñi ne leen dem leen ngeen wuti ngeen leen xewal bi demee màjjale bi ñëwaat fekk gaa yi jàng alxuraan maam Cheikh dafa laaj balance teg ko daal di jël lañ màjjale teg ko ci balance bi jël beneen paan bi teg ko ci ba xam ne def leen fii li ngeen jàng ñun gaa faa ñun ko dañ doon tari rek ak wax ni ñu utee donte dañ doon jàng alxuraan ñii dañoo jëf waaye bi ñu tegee ci balance jëf ji kon màggal gi moom jëf ji rek la amul dara loo ciy wax saa salaam ba génne ko àdduna ci weeru safar taxul ba tax tey nit ñi di dégg sawar ba tey kenn déggutu ko lu dul lim gin koy lim di ko wàññiwaale ci weeri waaye safar dafa mel nag gaaf gan ko gaafal ba wax balaa yàgg àllarbay kere kenn du sangoo kenn du nàngam yooyu dafa dem ba mujj gi la ci xew lépp ci lu baax sax bu ñëwee dañ koy fàtte ñépp seen xel ci gaaf lay dem kon baatu nga safar kon fii la ko borom Tuubaa fekk léegi nag leneen li gën a doy waar mooy xoolal fi suñu borom def safar ci diggante weeru tamxarit ak weeru gàmm ñaari weer yi lu ñu seq foo jëm ndax tamxarit ci la yàlla bind weeru tamxarit ci la yàlla bind xalima ga bind ca lawhul mahfuz bind ca aras bind ca kursi weer woo xam ne ci la suñu borom bind àlliwoo bind ca xalimam bind ca aras ak kursi yu doy na sëkk tegtal ci weer wu rëy te am na fukki mbir yonent yoo xam ne seen mbir suñu borom tabaaraka taala ci tamxarit la ko defaree aadama tooñ gam tooñ li muy rëy rëy rëy ba ko suñu borom génnee ba mu koy jéggal bis tamxarit la ko jéggal ba ko firoon nay dàq muy daw ba dugg ca géej ga maanaam ba mu sànnee yet ga géej ga xar mu jàll yëkkati ko firaw na lapp ca biir bisu tam xarit la yonent yàlla insa xam nga insa moom ñu bari yenn ci ñi dul julli sax dañuy jàpp ni moom la ñu daaj wala ñu rendi ko waaye yahut bu tudd yahusa moo ko doon moom lañ wax mu dàq ko bi mu dàqee insa ba insa dugg ci biir néeg bi yahusa dugg rek suñu borom aj insa yéegi ko ci kaw léegi nag daal di jël kanamu Insa nuru la ko yahud bi Yahusa moom léegi bi gaa yi duggsee gisuñu kenn ku dul yahu Yahusa ci ci néeg bi kanam ji kanamu Insa la waaye jëmm ji di jëmm Insa ñii ni moom la ñii di ñii di moom ñu ni waaw bu fekkee ne Insa la ana Yahusa ñu ne bu fekkee Yahusa la ana Insa la ñu ne ah kenn fi nekk daal te kanam ji kanamu Insa la ñu jël ko kooku lañu jël nag daal di koy daaj ci kuraay yi catholique yi yor waaye suñu borom tabaraka wa taala nee na wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum kon kenn reyu ko kenn daaju ko waaye insa dañ koy yëkkati ci kaw ëllëg day dellu siwaat moom kon moom ñu ngi koy yéegee bisu bisu tam bisu tam xarit yonent yàlla yunus ba mu ko géej ba ko jën wa wan su suñu borom yebal géej ga ni euh, jën wa ni ko wan nal tabul sàq mi ñeneen ñi beneen jën wan naan na ko mu am fa ñeen fukki fan ci biir lëndëm gaak targa ba muy sikkar nee na su borom tabaaraka wa taala bisu tamxarit borom Tuubaa nee na ci la ko jën wa génne ci njàqarem googee génne ko ci yonent yàlla Idris ci lañ ko yéegee yonent yàlla euh, Ibrahima ban ko sànnee ca sawara wa yàlla di ko musal bisu tamxarit la kon gis kon weeru tamxarit weer la wow maanaam suñu borom gannaaw yi ci bind am na fukki yonent yoo xam ne seeni mbir suñu borom tabaaraka wa ci weeru tamxarit doogu la ko defar kon doy na daraja kon dañ mel ne tamxarit kon dafay daal mujj doon aw giléem walaw ñay woo xam ni daanaka ñay lay taxawe léegi nag su borom teg ca safar day mel na aw cuuj moo fa nekk rek moo tax daaw ko dégg léegi boo génnee safar leelutoo mawlidi nabi leelutoo maxwi riya bi leelutoo maxwi temps bi watuxuri si taasu mi kooku doy na <laughs> weer woowu bu ne ci ren saa salaam gën a jamono kon léegi xoolal maanaam safar ñaari weer yi ko seq nin toll day mel na ñaari ñay yu tiim ab cuuj buñ koo félee sax mu faatu te gis nga ma la waxoon ñi ca xew al yawma akmaltu ca la wàcc ci la Cheikh Ahmed Tidiane jot lam lam yoroon feebar bi génn yéen saa saram ci ci weeru safar la ko attaqué ñaar fukk fan ak juróom-ñett waaye gaafal ga ak ñaar yi ko seex tax na yooyu dootoo ko dégg borom Tuubaa su ñëwoon tey ci saayir maanaam ci misaal daal di tukki ci tamxarit dañ naan ah tamxarit kat jekk dañ ko daan màggal di ndax tamxarit moom ñun ñëpp a koy màggal kon xam na ni bu ñëwoon tukki ci gàmm ñu ne ah gàmm kat ci leen sallallahu gën a jamono waaye dafa ñëw fekk ci weer wow mi ngi dugg ci diggante ñaari weer yoo xam ne fi mu toll nii safar ni ko gàmm ak tamxari seqe amul beneen weer boo gisaat ñaari weer yu toll noonu seq beneen weer bu dul safar kese mu fekk ñu gaafal ko ba ne ñetti junni balaa ak ñaar ko junni cee wàcc waaye nga borom tubaa nee na baaraka lii fil xarakaati bu sukkoon yàlla barkeel sama yëngu ak sama dal mbas ta xasida borom Tuubaa ci réewul baatub xasida ndax juróomi ñaari way am nañu ni xasida lañ koy tuddee ñi daan tag yonent bi kon la def ay xasida la waaye fi mu toll nii barkeel googu suñu borom barkel tax na fu nee xasida sa xel dootul dem ci kaxaab ak bu Bachir ak ñëpp ci Cheikh Ahmadou Bamba rek lay dem. Touba yàlla ko ñu ko wax ci alxuraan te alxuraan ak sëriñ bi diggante bi man nag junni at ak lu topp sallallahu alayhi wasallam nee na inna Touba shajaratun fil janna Touba garab la ko sax àjjana bépp fruit bu ëll bu di lekk ëllëg garabu Touba ci lay génne. bépp ker gu waaye di kerloo ci àjjana ci garabu Touba lay jóge te sallallahu alayhi wasallam wax na ci benn xaris daan ni garabu Touba la ker ga ko waroon ci kaw warwaay bi gën a gaaw ci àdduna nga nga mën nga koo daw téeméeri at doo génn ker gi te nee na garab googu li tax du dee mooy yàllaa yor suuf bi koy arrosé garab goo gis fii doomu aadama ju farlu doomu aadama bu farlu moo arrosé garab yi ci biti te doomu aadama day faatu robinet day coupé day fàtte day feebar te pourtant mi ngi arrosé ba garab yi jóg di def ker waaw suñu borom tabaaraka taala mi nga xam ne sunu suñu walaan mu la xool mu arrosé nooy mel te pourtant bu nee Touba kenn du dem sa xel du dem ci alquran du dem ci wax yonent bi waaye ci Touba gi Cheikh Amadou Bamba ngay dégg ndax barkeel googu suñu borom moo tax bu bu nee xasidati faqat xasaidal kiram wali taqud abadan xayral maraam war naa doy sëkk ndax fu ne eh loolu la xasida kenn du xalaat keneen ku dul borom Touba te gis nga fi mu nii xasida si faqat xasaidal kiram léegi fi mu toll nii xoolal nañ misaal lool rek ci ni borom Tuubaa lu laal nu muy jógee fi mu toll nii xasida ku koy bind da ngay soxla xalima da ngay soxla daa da ngay soxla am xel soxla xam-xam soxla këyit soxla xol buy teewlu maanaam soxla loxo yu téye yooyu yëpp maanaam fi mu toll nii boo tey boo nee sama kër moo dàq kër sëñ xalil ñu ne waaw ah, waaw sa kër nan la mën a dàq kër sañ xalil wan ñu plan bi ñaata néeg fa nekk néeg bu nekk meuble meuble ba nga ca def nan la toll ci valeur ñuy door xool ba xam sa kër moo dàq kër sëñ xalilam def borom tubaa nii man daa ji bind bokkut ak daa ji gars yi di soos si ci nii ndax daa moom ñaare noon la dangay dem xoos si ci nii ba ñuul ku ko yooyu ñëw wut ay dàkkaan ak yooyu daal di bind waaye koo xam ne nee na sama daa ji mook deretu saxaaba yi doon xare ci yoon yàlla ñoo tolloo daraja maa ummi daal di ko di maa ushuhada waaw koo xam ne sa daa ak ak deretu saxaaba yi ñoo tolloo kooku la bind mën sa yem ak waaw barakatan kamatari sama ay fawqa kulli ma in waxul sax ñuy tolloo waaye na ko kawe te kawe moom bul xam nu ni fii kawe waaw ndax fi mu toll nii euh, ganaar bëye ko sut bëy xara ko sut xar naga ko sut nag giléema ko sut waaye xama nga bokkul waaye kawe googu maanaam muy gétti gétti moom fi mu toll nii xam nga giléem moom boo xasee ba koy xool a ganaar loolu doonatul ay ko soixante millions ak trente muy quatre-vingt-dix millions ka doon bañ dix millions yi barke ak cinq millions yi amul barke nangoo jël ñaar téeméer am barke suñu borom fay na ko ci quatre-vingt-dix millions ci barke barke boobu Cheikh Ahmadou Bamba nee na barke mooy loolu mooy donte lu néew nga yor suñu borom la koy maanaam jàppandil ba say soxla yëpp day yem ca loola borom Tuubaa nee na barke boobu ñëpp sàkku nee na suñu borom dëxëñil na ko def ko ci sama biir bi muy màggal kon ku bëgg màggal ku bëgg barke da ngay mu ne su dëkkatee na ngeen ko def nit iidu mooy sama bis muhammadoo gën duudu borom Tuubaa moo ne kon su bis bu dikkatee def leen ko ne iit bisu feet lay doon bu kenn xeeb ganaar banaa matula rey bu kenn naw giléem banaa duma ko rey kon kenn ku ci nekkoon foofa war nga lum gàtt gàtt ngay indi ganaar bon juróomi téeméer ba juróom benn téeméer ci at moom lu waay gàtt gàtt wërsëg suñu borom mën na la ko gàttan jàppandeel kon bu kenn xeeb ganaar banaa matula rey bu kenn naw giléem banaa duma ko rey mu daal ne xormay sëriñ tubaa jawar ca bis ba mënee su ko feeñal keroog fa nee na bis bi war ma ji nga xam ne moom la laaj dëgg nee na kenn mënu ko feeñal fii ci tubaa ñu ne ko tax mu ne nit ak jinne ak malaaka ay teew ngir dara jëy Cheikh Bamba bis bi lay siiw kon bis bi borom tubaa nee na nit ñi ak jinne yi ak malaaka yi ñépp dañuy teew si ndax am na sa boobu ñuy nettali ci mbàkke mbakke boobu yónni woon kenn ab cere bi mu ko yónnee ba mu ñëw ci gàttal mu ne ko cere ji du cere nit ku la ko jaay mu ne ko diw sàngam mu ne mu yóbbu ko fa mu ne ko yow cere jii nga jaay foo ko jële mu ne ko man dey du nit jinne laa mu ne ko foo bàyyi ko mu ne ko xawma ko waaye bi ma ñëwee màkk accès màkk laa xaajal fa mu jógee mu ne ko looy wut ci bis bi mu ne ko ñun cere ji ni jaay jariñuñ dara waaye bi su màggal suñu borom daf ñu cee wan loo xam ni bu ñuy ñëwee di jaay cere murid yi fi màggal si waxtaan gi ñuy saafonteeg ñun ñu leen di xool dafay tax bu ñu delloo ci fa ñu nekkoon ña warta woon a texe bu ñu xoolee ci barkeem ñoo ñee nekkoon ci màggal gi dañuy xool day tax suñu borom tàbbaleen àjjana waa xoolal loolu moo tax ma ni bis bi nit ak jinne ak malaaka ñëpp ay teew ngir dara jey Cheikh Bamba bis bi luy kon bis bi nekk ni mu fii ci suuf noonu la siiwee kaw ba mu tax nit ñi ak jinne ak yi ñëpp koy teewee te sëñ Tuubaa wax na ni xabli xaddama ni ihsana malakan aw masuran aw insana kon loolu day tegtale ni ma nga ñaan yàlla faj aayo ñi nga xam dañ koy liggéeyal ci diggante nit ak jinne ak malaaka yeeg ñëpp ba Baye Moussa daan dangeen ngeen dajeeg gaa ya nekkoon barzaq ñëpp ay ziyaare Bàmba mel ni soq nee na ci bisu magal gi danañ ci dajeeg gaa yi xam ne ñekkoon barzaq nee na ñoom ñëpp ay fàq ba mu barzaq ñëw di ziyaare ci Cheikh Ahmadou Bamba mel ni soq waaw loolu loolu loolu maanaam lu mat di settantal la bis boo xam ni ñen nekkoon barsax ñëpp dañuy ñaam su borom tabaraka wa taala ngir bëgg ñëw fekke màggalu Cheikh Amadou Bamba yi kon loolu day wane ne bis bi dafa làmboo loo xam ni leneen lu dul moom làmbowu ko mu ne Bamba ko wax diglul ma feeñal kooti duma ko duural ndax nga del ndax nga dolli kooti sëñ Moussa Ka li ma la wax ni la nit ak jinne ak malaaka ñoo fay teew ak waa barzak nee lu borom tubaab bind la du ko duural xaaral ma indi la ko fa ko sëriñ Tuubaa indi bind ngir nga bañ ko weddi yow mi xamul mu ne inna allazina shahidu fil mahraki mujahidina kulla abin mushriki liya nawaalun kulluhum yaxbituna fiihi wa kullun zairun li watani ba borom Tuubaa nee na bis bi même saxaaba ya nga xam ni dañoo xare woon ca xare yu mag ya nga xam ne tedd nañ tedd goog suñu borom sax nangul ku leen di sang wala ku leen di sang noonu leen leen di suule wala taxsibanna allazina xutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahyaa'u inda rabbihim yurzaxuuna suñu borom nee na bu leen jàpp mukk ñi ñii di xare dañoo faatu ndax bu ñu kat damay jël seen ruuy def ko ci ay doq ay picc ñuy force dëri àjjana am Ahmadou Bamba nee na ñooñu bi ñu xoolee li ma am ci màggal gi la ñuy am am daraja ca shahid yooyee dañoo dem sàkk ca sun borom ni dañoo bëgg a ji Cheikh Ahmadou Bamba ci màggal gi ndax ñu dolli ko loolu doy na sëg gaa yooyu fa ñu toll nga xam ni sallallahu alayhi wasallam nee na jëfi saxaaba yi ak jëfi ñeneen ñu dul moom day mel na picc muy naaw ak sànq lañ koy dox waaw kon ne xam na ni picc muy naaw ni muy gaawee ak sànq lañ am na différence ndax ñoom dañoo jëf ci jamono bu spécial jëf ko ki yàlla gënul ci mbindeef yi muy sallallahu alayhi wasallam kon ñoom seen mbir bokkut ak yeneen mbir yi waaye bi borom Tuubaa ñëwee suñu borom jox na ko loolu ñoom ñoo ñooñee doon sax bu màggal ñëwee dañuy sàkk fa suñu borom tabaraka wa ñëw ci bis bii ngir tànq si ngir ñeeñu <laughs> moo ko wax wa kullun za'irin li watani ñoom ñëpp dañu ñëw di ma fii ci sama dëkk bi bàyyi mu sàkk daan ni malaaka yay bawoo xasiratul xudsi ñëw ziyaare géewi màggal yi nuxuus leeru guddig màggal xasal day jolli ba ca arash malaaka yay wëlli nee na guddi gi maanaam malaaka yi sell ya nekkoon ci kaw it dañu fay bawoo ñëw ci suuf maanaam di ziyaare ci géewu màggal yépp fépp fu ñu tànt ngir màggal moo xam barab yu mel nii nee na malaaka yi dañu naan fi xuus fees fi dell di taataan ci barkeeb màggal Tuubaa malaaka yi nekkoon nag ci pays te nee na guddig màggal borom Tuubaa nee na xasal dafay jolli ba ci aras nee na aras dafay jolli leer ga dafay tasaaroo ba ñëpp di laaj lu xew ñu ni teel a màggalu Cheikh Amadou Bamba gi ndax leeraay gu muy leer foofee mu ne kazaaka ñooñu aras kazaakal kursi yi ak ahlu badrin ha kaza nabi nee na aras ak kursi yi ahlu badrin ak yonente bi nee na leer gi dafay tasaaroo ci seen biir ci guddig màggal gi nii te mu ni te ku fa toog lu toll ni jaaru jandi say daaru mat junni bi junniy jëndi te nee na bisu màggal ku fa toog lu mel na ab seconde rek nee na kër yi la fa yàllay fayee day mat junni bi junni jëndi maanaam ay junni junni junni ci kër lan lay fay ci àjjana ngir maanaam benn seconde bi nga toog ci barab bu ñuy màggale bisu màggal Tuuba te li ci gën a garaaw mooy gis nga lëletul xadri nga xam ni xayrun min alfi la nga xam ni mille mille mois mooy ko dund quatre ans six mois yoo xam ne bëccëg gi da koo woor guddi gi muy naafile boo rek di saraxe ak digle lu baax tere lu bon lam am ca biir 83 ans 6 mois yee moom la yàlla wax ne ku màggal benn guddi lëletul xadri ma fay la loolee te Cheikh Ahmadou Bamba nee na la nekkoon ca Laylatul Qadr suñu borom indi na ko ci màggal gi xam kon guddi guddi Laylatul Qadr suñu borom dafa yebal Jibril tanazzalul malaa'ikatu wa ruux ruux googee Jibril lay firi kon Jibril la yàlla yabal mu yor délégation boo xam ne malaaka yi dañuy topp si moom ñu wàcc ci bisub Laylatul Qadr maanaam di indaale xewal yi ngir ñi nga xamante ne si ñoo koy màggal ba fajar di jot Cheikh Ahmadou Bamba nee na xam ni ni yàlla di yebalee Jibril mu ànd koo ki malaaka ñuy wàcc bisu leetul xadri noonu la yàlla sàkke malaaka moo xam da koo fonk ba ca ronu aras la ko def malaaka moom du génn lu bisu màggal tubaa maanaam suñu borom yabal ko jox ko délégation bu rëy ni ko demal ca màggal Tuuba ga yow falaa la yabal te malaaka moom moo tudd waali waali waali la tudd waaw moo tax Baye Moussa daane keroog la yàlla di yabal malaayika mu tudd waali muy wisit màggal ga te malaaka moom suñu borom da ko fonk ba ca ron aras la ko la ko dugal mosu koo génnee màggal rek la koy génnee màggal rek la koy génnee jox ko délégation malaaka ni Jibril di jiitee gaayee ci lëf xadri moom ci noonu la ko yàlla di jiitale ci ak malaaka yi ñu topp ci ginnaawam maanaam ñu ñëw sëñ Musaa Ka ko wax keroog la yàlla yebal malaaka mu tudd waali muy bisit màggal ga ñuy ñëw di bisit màggal gi fu ne ñu jaar fa fu màggal ne ñu jaar fa nee na ba ku dem ngir yàlla ak yeneen ba ak gaa ya fay def safaan ci Bamba moo tax ku ñëw war ngaa ñëw te borom tubaa tax ndax ne kat ñoom bu ni dañuy xool ki ñëw ak te yàlla ak yonent bi tax ak ki nga xam dafa ñëw rek ngir caaxaan nee na bu ba mu dellusee fa yàlla di bëgg xibaar mu ni ko jéggal naa seen jéggal naa leen seen i bàkkaar nee na malaaka mi ni ko diw sàngam defoon na nangam bawoo barab sàngam mu ni ko moo xam kon ne ko ab yoolam ma diw sangam ci dara darajey diw sangam ci biir sangam kon nag dégg nga sëñ sëñ sëñ Moussa Ka nee na malaaka moom su ñëwee wisit màggal ga ba dellu day informe yàlla ne ko diw sàngam dëkk dëkk bërëb sàngam woo dëkk sàngam def naa fa nàngam suñu borom ni ko moo xam nee ko yoolam ma waroon am ci màggal jox naa ko diw sàngam ndax sàggane gam sàggane kon nag tawféex gi mooy bu nu ñëwee nu fexee xam nu sëriñ bi bëggee nu màggale ko ñu def ko fa xam nga tey ci Matlabul Fawzayni ñu ngi fii lañ nekk ci mbaaram alhamdulillahi karimi sin minan alastighali bi furudin wa sunan waroon naa tax ñëpp xam màggal maa ngi sant yàlla mu tedd mii borom xewal yi ci lan mu ne alastighali ci sama soxlawoo bi furudin ci farata wa sunan ak sunna nee na maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moom ma soxlaal man maanaam awma benn soxna bul farata ak sunna te nee na bëgg bari nañu ko bëgg waaye amuñu tawféex gi man mi ko yàlla jagleel na ba nga xam ne sama lépp ak sunna la maa ngi sant yàlla moom shakartuhu li annahu qad saaxani li bii bihi nafa ma àqani nee na maa ngi sant yàlla lu tax mu ni ci dëkkam bii di Touba nga xam ni bii ci dëkk bii nafa ma àqani ci la suñu borom dàqee lépp lu ma doon gàllankoor man Cheikh Ahmadou Bamba ndax li ko doon gàllankoor mooy nit ñi ak li ci noxoy nit ñi ak àdduna mi koy topp muy def fun ko yóbbu mu fexe faa bawoo ngir wut barab bu laab bu mu mën a wéetale boromam xam nga Touba bi fi sëriñ bi ñëw booba forêt vierge la kenn mosu sax bay ay rab àll dong fi dëkk moo tax ñuy wax ne Matlabul Fawzayni ba mu koy bind ba ca biir ci la gaynde ga doon dàq tilliwa tilliwa daw làqu ca ginnaawam kon loolu da nga ca jàng ni kon dekete fii ay rabu àll dong nga fi dëkkoon kon gis nga ay rabu àll dong nga fi dëkkoon wa qaadani ilayhi bi taxalli min ba'di ma xazaba bi taxalli te nee na suñu borom tabaaraka wa xam nga tasawuf xam taxal taxalli ak taxal taxalli maanaam mooy nit ki bala ñu koo sorol ay jikko dañ koy rëkki ba pare ba mu set jikko yu ñaaw yi door koo sorol ay eh, maanaam jikko yu rafet yi mi ngi mel ne nit ki day sangu ba noppi door a sañse nee na bi ma suñu borom ommatee ci Tuubaa gii nga xam ni moom ma dama ko doon wër ngir daw lépp li gàllankoor doomu aadama nee na ma ci dem suñu borom ko taala taqaleeg mboolem jikko yi musu caa jaar sax waaye jàngalin la ak torox la gu muy def nee na taqalikoog mboolem jikko joo xam ne dëppwul a ngërëmam nee na takkaayal ma mboolem jikko joo xam ne jikkoy ngëneel la kon loolu da nga ci jàngal ne ki ñëw Touba kon dafa war a rikkiku ci mboolem jikko joo xam ne neexu ko maanaam fexe ba sëriñ bi taqaal ko ay jikko yoo xam ne mooy jikko yu sell yu baax yi nga xam ne moo war a nekk ci moom moo tax képp kuy waaj màggal ji moo xam bu fekkee dangay dem salon dangay teg greffage wala dangay meesu wala dangay xeesal wala da ngay yokk maanaam yu xeet yooyu maanaam umpale ak ñàkk tawféex rek ka koy def ak ko seytaane man waaye borom Tuubaa moom li mu am yéene mooy sant yàlla te sant yàlla ci as ci suuf si maanaam pays bu ne ma jàll ci biir ba ci biir juróom-ñaareelu suuf pays bu ne dama faa bëgg a taxaw sant yàlla ba foofu fees del ma jàll ci juróom-ñaareelu suuf ba mu fees del ma yéeg ci kaw asamaan premier ba septième fu ne ma sant yàlla ba mu fees nawaytu shukurallahi mil al ardi ma sama xayru shukurin yurdi kon moom yéene ji ma am mooy waxul kaw suuf gii de bu paree kaw suuf si ba mu fees day jàll ci deuxième suuf ba ci tarsa ba ci juróom-ñaareelu suuf fépp mu fay sant yàlla yéeg ci kaw asamaan nee na barab bu ci nekk ma taxaw fa sant fa yàlla ba mu fees may door a bàyyi waaye Cheikh Amadou Bamba nee na damay sant suñu borom ba mujj gi gis yàlla moo may sant moo woo gaaye 124000 anbiya ak rasul yi woo malaaka yi woo waliyu aqtaab bi ku am daraja woo leen ba nu ñëw mun leen maa ngi sant Cheikh Ahmadou Bamba chakara nisul aradi wa sama la daa xiyaari xadru sima waaw chakarta ni inda jamihi jundika waaw sant na ko ca mboolem gaa yi kuréel bi ñëpp la woo moom su borom di sant Cheikh Ahmadou Bamba moo tax ñoom ñëpp ñu mujj nag xam nga yàlla moom tey ku muy sant ci kanam gaa yi ko am xel da nga ne ko ah yàlla kat wan na kooku ñu seete ko ziyaare ji ko moo tax ñoom ñëpp a sàkku ca suñu borom ñëw di ziyaare Cheikh Ahmadou Bamba moo tax bis bi ñëpp a fiy teew ñi sa ginn ak malaaka ñëpp a fiy teew daraja ju waaye am ak foo mën a àgg boo ñëw ci bis bi da nga yokk loo xam ne bis bi rek moo la may loola kon nañu xam ne sëriñ bi sant yàlla la woote waaye fi mu nii xoolal li gën a doy waar la in shakartum la azidannakum waaye kon buñ santee ñun kan maanaam njariñ gi ci kan la jëmaat xam nga nit ñi sëñ daaw la da dégg ñu naan borom Tuubaa benn la mës a woote wàllu léegi ana wàllu ga wàllu gi wàllu gi anam gaa yi dañ naan sëñ bi benn la mos a woote wala mooy ci màggal gi cant gi daf noo bëgg a dimbali yàlla ni la in shakartum la ko maanaam yàlla moo ne bu ngeen ma sante ma doon leen te ñun maanaam suñuy bàkkaar ak suñu tilim buñ sante yàlla bu fekkoon dafa war a nekk 1000 du àgg 200 du àgg euh, cinq waaye sëriñ bi xam na ni moom bu sante yàlla wala mu woote loo xam ne ci turum la jaar ndax tey mboolem lu mu sant yàlla ñun ñëpp suñu borom da koy teg ci loxob Cheikh Amadou Bamba moo koy nangu yóbbul ko yàlla te lu mu yóbbul yàlla suñu borom jël ko ndax moom lépp ma sell lépp ma mat nee na sama xasida yi ak xasida yeneen yi xam nga leen utale ñu ne ko mbàkkee loolu utale mu ne ku ma sa bind yàlla day yebal ñeenti noon yi àdduna saytaane ak bànneex ak ak nee na kenn ku ne bu ñëwee day xool lam ci am mu jël ko la ca des bu yóbboo yàlla soxlawul aw desit waaye man lu ma def ñoom ñeent ñëpp dañuy ñëw wër ko ba mu daj duñ tëggee luñ ci moom ñu dem ma door a yóbbu ci sunu borom tabaraka wa taala moo tax soxna may Mbàkke daana naan su ngeen xamee su ngeen xamoon li ma xam lu ngeen jaamu yàlla da ngeen ko def addiyee borom Tuubaa ndax fi mu toll ni jaamu yàlla goo def malaaka yi dañ ko visité par asamaan de nga ñëw ñu ne ndax ngir salul ndax rëyul ndax sell na ndax nangam na te ñoom bu ñuy wàccee di wàccee yàlla mu soxla aw des te loo jox Cheikh Amadou Bamba su manqué mooy mottali bu tullimee mooy fóot su gàttee moo koy njoolal te moom lu mu yóbbu suñu borom jël ko léegi nag sëriñ bi dimbali gim ñu bëgg dimbali moo tax mu nekk ay sutug yooyu jétti lay doon xalima yi borom Tuubaa nee na sama xalima yi maanaam boo jëloon tuyaabay gaa yi demoon ci jihaad wala nga jël mboolem jaamkatu yàlla yi maanaam sama xasida yi ak ñoom suñu borom def na ko ñoo tolloo daraja ñoo ko kawe sax faa xadladallaahi aqlamilati xadamat ahmalu man jaaxalu wa kullu man hamada képp ku mës a wala nga jaamu yàlla suñu borom def na ne sama xasida yi sama xalima gi may bindee kawe na leen ñoom waa koo xam ne say say xalima moo kawe ñi doon jihaat ci yoon yàlla te jihaat kat daa métti de xëy ba ngay def bocc sa jaasi dem boo geesoo gis sa doom gis sa yaay gis sa baay nar fee bàyyi sa kër soo demee boo faatul boo yóbbu ñaari bët mën ngaa indi benn bët soo yóbbu ñaari loxo mën ngaa indi benn baa nga kuuñ soo yóbbu ñaari tànk mën ngaa indi benn wala boo ñëw dañ lay jàppoo niilu wanaalu waxtal anaa yi dañuy jame ñu leen di jame sëñ Tuubaa ni sama xalima gi dem naa ba mujj gi moo kawe gaa yow kon kay kooku la muy bind du bokk keneen ñu ni ko sa xel mi ngay xalaatee sëñ Tuubaa ne téeméeri téere ak ñeent wàcc mu ni boo jëlee fukki téere yi joxoon Aadama ak cinquante yi ñu joxoon sa trente yi joxoon idrisa dix yi joxoon Ibrahima ak lan joxoon Muusa muy Tawreet injil dañ joxoon Insa zabur gan joxoon Daawuda ak alxuraan diñ jox Muhammad sallallahu boo koy jëlee teg ko ci balance mook sama xel man borom Tuubaa ñoo tolloo dara ci xëbli kaw na xaqli xëbli ya yaawu bu kaw na xaqli ka kutubin xat unzilat fi naqli na nga def sama xel mu tolloog mboolem téere bu nu wàccee moo tax mu doon wax sëriñ Dia Seck ni ko téere téere boobu ñuy wax yorente bi fi a ñëw aw jukki lan la ci jox waaye ku gisul ahmadu mi gisoo mu mat ma ku gisul ahmadu gisoo mu mat ma moo tax gis nga borom Tuubaa sallallahu alayhi wasallam keroog ba muy sukuraat di génn jamono jibril ñëw mu jooy su mu ne ko sa borom ne la jooy mu ne ko yërëm xeet yi ba xam seen gannaaw suñu borom ne ko bu demee ba xarnu bi am fukki eh, xarnu ak ñeent danaa jël sama jëm ak sa jëm wàcce ko ñëw ci suuf moo tax borom Tuubaa ni diggante bi yeneen saa sallam du fi jógee ak xarnu boobu ku fi ñëw rek ndaw nga maa la yebal ñax ñëw ko ñoom ñëpp ay ndaw yu borom Tuubaa lañ moo ca yebal moo tax jëriñoo xeeb sax ndax ku sëriñ bi wóolu ba yebal am na loo mate lu kenn xamul man moom sëriñ bi la man loo man moom ci sama toolaay ba gàtt lu kenn xamul rek laay wax ndax boo ne yàlla sax yàlla ñi ngi xam ni amul fu mu tàmbale amul fu mu yam ñi ngi xam ci yooyu moom waaye sëriñ moom lu kenn xamul rek la lu kenn xamul kon moo tax fi mu toll nii safar keroog ba mu nee ci yow ma sabti saamina achar li xidmatil muxtaari fii chehri safar ci la safar commencé maanaam di di jug di jug ba tiim ñaari ñay yi ba mëdd li dugal dugal ñaari ñay yi ci biiram xam nga ñaari ñay yi mooy tamxarit ak gàmm moom mu doonoon cuut waaye ba ko borom tubaa tuddee ba tukki ci moom ba tudd baatum safar barke bi ko suñu borom defal moom borom tubaa ndax lu mu tudd suñu borom daf koy fayee moom jëmmum ji ñam toll te jëmmum ñam toll kenn xamu ko moom waaye safar gi dafa mujj jug ba tiim ñaari ñay yi ba xëcc leen dugal leen ci biiram ne waat teg moo tax fi mu toll nii amul benn weer bu ñuy séntu bu weeru safar amul tam xarit kay mooy atum jullit ñi waaye kenn déggagul ñu ne eh dañuy séntu weer wu la xew ñu ne tam xarit ñu ne déedéet borom Tuubaa ne rasulullah sallallahu alayhi wasallam sababi kulli nasabi ku yàlla bind moo tax waaye gàmm mooy jot kaaren séntu weer bi kenn mosu koo dégg waaye safaru Cheikh Ahmadou Bamba gi saa bu jubsee gaa yëpp di ko séntu ndax moo ko tudd ndax ba yàlla ko barkeel loolu doy na sëkk loolu doy na sëkk loolu mooy li sëñ Muntaxa Géey doon nettali ni ba mu ànd ak soxnaam soxna si di ko jàmba jàmbat sëñ Saal dafa jël bitu Evian bu bees ñu ubbi ko sotti ko ba mu jeex mu tëj ko bi ko joxee ba soxna si dem ci biir jumaa ji mu ne ko waa man bitel bu amul dara lu ma ci def nee na ci ren leen sëñ Saaliw ba mu ñëw mu ne ko mën taxaa mu ne ko Mbàkke ñoom Saaliw fu dara néew la ñuy def dara waaw fu dara néew la def dara borom Tuubaa dafa ñëw fekk weeru safar fii ñu koy gaafal ba mu nëbb yële mu yëkkati ko ba fi mu toll nii tey safar dafa dem ba la nekkoon ca tamxarit mu dugal ko ci biir jël la newoon ca gàmm mu dugal ko ci biir ak tabaski ak mboolem bis bu baax la dugal ci biir moo tax Baye mu saaka daa ne bis bi làmboo na tabaski ak tamxarit ak gàmm am na barke amul leneen lu am loolu di moo tax màggal kawe lu dul màggal màggal moo kawe lu dul màggal ndax fi mu toll nii moom kon ba mu tukkee ci weer wi ci la yëkkati safar ba safar tiim mbiru yépp fi mu toll nii bisub suba beneen bis boo gis maanaam promotion ba xam nga bu nee promotion 1000 pour cent am na lu mu neex neex neex boo jëndul doo am waaye bisub suba li tax mu spécial mooy amul ñaan da nga ñëw di tibb moom moom amul looy ñaan moom bisub tibb la ndax waaw fa taxtu baaba shukri fii shahri safar xam nga fi mu toll nii te loolu li tax mu neex a dégg mooy ñu ngi koy waxtaan maa maag sëñ Dawud beneen ku ñëw Sénégal weeru safar danaan Sénégal moo ëpp moo ëpp jàmm maanaam moo ëpp économie bi maanaam crise amu fi ndax murid yoo xam ne premier safar ba six safar bis ne ñuy dépenser mu mel ne kon Touba ñun dañuy ñëw rek croiser les bras te pourtant ñooy indaale liñ fi xewloo kon kooko fa tax te baaba sukri fii chehri safar kon am na bunt yu ubbeeku yoo xam ne da ubbeekuwul woon ca yeneen na lu weer ya kon nag bis bi day bis bopp jërul ngay son di ñaan yow tibb rek lan la wax kenn ku ne nag sa pas-pas fam toll noonu ngay tibbe rek kenn ku ne sa pas nam tolle noonu ngay tibbe kon màggal moom faw nit yow nit ñi yewu ci ni mboolem bis booy dégg rek maggal xëcc na la dugal la ci biiram te moom ay mbiram kenn tudd ko ko moom Baye Moussa Ka neen la yàlla defuloon kalima fi dëhrihi defal ko Ibrahima ba yàlla buur bi farataal tabaski ak tamxarit may na ko gaaya mbàkke bi xidmatil xadimi lil maxdumi fil baxri faru leen ila tanzimi kon la nekkoon ca tamxarit yàlla ommat na ko jox ko borom tubaa ndax kat tamxarit Moussa moomu borom dégg nga bàyyi Moussa bi sëñ musaa sëñ tubaa nee na yonent yàlla musaa ba ko firoon a dàqee million ak six cent mille personnes ñoo ko toppoon moom Moussa ak gaaya bi te dafa daw bi mu jàkkaarloo géej sëñ tubaa nee na ba muy sànni yat wa géej gee xar man ahmadu maa ko joxoon mbóot moo tax yàlla jël la newoon ci tabaski indil ko tam xarit la newoon ca maanaam mbuur ma newoon ca tabaski yàlla omatal na ko ko mbuur ma newoon ca gàmm yàlla omatal na ko jox ko mboolem bis yëpp màggal da ko mëdd dugal ko ci biiram kon day bis boo xamante ni sii képp ku suñ borom defal tawfeex nga fekk ko maanaam da war a fexe jaayante sa lépp ba fuut ko maanaam fuut sa bopp fuut goo xam ne dootoo soxlaati tilim waaye diil sa bopp loo xam ne dootoo soxlaati leneen ndax day bis boo xam ne lépp lépp lépp mu ngi ci biir bis bi moo tax am na benn taalif xam naa ne ci la ñuy xool bu sëñ Moussa Ka doon def ci màggal gi xam nga Baye Moussa Ka dafa ni ma wax la màggal gu yeyoo miraasu ba desewoo dara ni koy faraasu léegi xam nga léegi miraas mooy lan nit ki faatu bàyyi na fi alal dañuy séddale li fi nekkoon lépp duñu fi bàyyi dara xam nga dul miraas bi ak ñu ne ah te ñu fee bàyyi cent mille yi pour waa ji wala nangam lépp dañuy séddale Baye mu Ka ni la maa ngi lay wax màggal goo xam ni moom rek moo jar nga miiras sa bopp ba di sew fekk ca boobu jamono am na genn góor gu am jigéen doomu jigéen ju muy may beneen doomu buur buur dafa bëgg doom ji doom ji sañse bi mu ko sañselee daan di gaa yi ndax sama doom ji rafet na ñu ni ko toarkal la waaye ay su amoon benn peru jamaa ba taf ko ci jëbi nga xam ne buy dox day leer xat góor gi ni wëri leen jamaa ci dëkk bi ñu koy wër ba ñëw fekk waa ji fi mu toog ci waa ji ni am naa peru jamaa waaye 30 millions laa ko jaay buur bi ni sama doom jaral na ma ko ñu jaay ko 30 millions ñu indi buur bi daal di koy tafal doom ji ci kanam ni xanaa waxu si leen dara ñu ne moom koy tuwaarkal la waaye ay bu amoon beneen def ko ci ginnaaw kanam gi leer xet ginnaaw gi leer xet ñu dellu ci waaja waaja daal ne piri bi yéeg na de ba 30 la woon waaye bi 60 la di ñaanal sëriñ Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te ànd ak wér ak njabatuk borom tubaak gumaam Cheikh Ibrahima Fall ak kilifa diine yépp ñoo ngi nuyu mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yëpp ci nuyoo bi gën a tedd ma nuyoo bi gën a màgg di nuyu islaam de assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa ñu ngi leen di ziare di leen baalu xaq gannaaw bi neen baale te ñaan suñu borom yàlla na ñu boole jéggal digital ci nuyoo bi sunu jëwriñ jaar ko ci moom mu jaarale ko ci waa kër gi yëpp ci kilifa yeeg njaboot geeg ñëpp muy sëriñ alxaaji njaay di ko ziare di ziare sëriñ daaw dëggay xasida ko defee murit yëpp dañuy duggaale ci biir ñuy ñaan ci barke bis bi ñu dëgmal muy bisub 18 safar yàlla na saa borom faj aajo yi képp ku fi teew wala ko amoon yéene bi lépp lu ñu fi jàng ci xasida jéesal ci nuuru daare bi nga xam ne moom la sëñ maam ceroon si sa doon jàng yàlla na saa borom nangu lépp moomee suñ borom gën a wéral baat bi jàppandeel cër yi ba lépp lu mu yéenee rek ci xaside yi suñu borom àggal ak fa kawe njartom moom ak tuut tànk yeeg ñëpp rek kon ñu ngi jégalu baax ci kàddu yi jëriñ eh, dafa am benn ziar bu ñuy faral di def waaye at mu ne nag ñi daan jóge sow dañ daan guddee ren nag yàlla daf ñuy toore agsi moo tax ñuy xaw a teel ak ci waaye ñu ngi koy tubaat bu baax ndax ñun moom dañoo waroon a toog ba même bu dee 4 heures du matin la ñuy joxe ñu def ko waaye ñoo ngi koy tubaat bu baax kon fàttali lay doonaat rek ndax bis yu nii moom bu buñ ci dajee di fàttalante dana jariñ ki xam dana jariñ ki xamul kon moo tax fàttali saa su ne dafay am solo nga xam ne bis bii ñu dëñmal dafay bis bopp biis la boo xam ne bu mat di settantal la di settantal bis bi ak jëmmi weer wi ak sax at mi nga xam ne moom la sëriñ bi génn ci tukkeem bii mu tukki muy weer woo xam ne moom lañu tuddee weeru safar safar nag weer la ci biir fukki weer ak ñaar yi ndax tey boo jëlee weeru tubaab yi wala yeneen weer yi fukk ak ñaar la bu dee tubaab bi ngay tàmbalee ci janvier ba décembre weeru olof tamit noonu lay tàmbalee ci tamxarit ba ci tabaski ba ci muharram muharram lay tàmbalee ba ci maanaam zilhijja lay yem muy fukki weer ak ñaar léegi nag fukki weer ak ñaar yooyu weer wi ñu tombel ñun mooy ñaareelu weer wi ndax muharram muy tamxarit mooy weer wu njëkk wi bu fekkoon ci tubaab la xam nga janvier koy ubbi février topp ca kon day mel na weer ni tomb kon février lay doon ci boo koy natt ci ci bëgg a xam tënk bi dëgg mooy kon ñi ngi ci ñaareelu weeru jullit ñi muy weeru safar léegi fi mu dul nii boo dee xool laataa bis bi ñëw foo romb rek mbokki taalibe jullit ñeeg ñëpp a ngi dajaloo ci seenu roq moo xam kefe la ñu am moo xam dañuy tour deret ak lépp bernde koo ci laaj looy def mu ni damay safar kon nag dana jar di baax ñuy leeral léeg tamit safar mooy lan boo ko defee kuy jugati bay bëgg a safar wala ngay safar da nga xam lan mooy safar ak it ji nga xam ne moom la ko nit ñi jox fan la ko borom tubaab fekkoon ak fi mu ko yóbbu ba tax it ji ñii maanaam ñëpp daw ji jëm ci moom weeru safar weer la wow laata sëriñ bi ji tukki weer wi dañ koo gaafaloon weer wuñ gaafaloon la ndax gis nga sax àllarba ji mujj ci weeru safar moom la ñu tudd àllarbay kare ñu cey wax yu bari ñu ne ñetti junni balaa ak ñaar fukki junni dana ca wàcc ñu ne yonent yàlla saalix ci yàlla alagoon nitam ñooñu rayoon gilim bi nga xam kon weer la boo xam dañ koo gaafaloon a gaafal ba nit ñi dañ ko daan jéggi rek di ko sori nga xam ni bu weesoo lim bi nga koy limaale ci fukki weer ak ñaar yi daanaka amul dara lay tuddaat ci safar te moo ne day am na yu mu jagoo yooyu waroon naa mën a tax bu safar ñëwee ñëpp di ko fàttaliku ndax bi yàlla bindee àddunaam ji wàccee fi nit ak jinne ni bi ma leen fi wàccee ngir ngeen jaamoo rek a tax yabal na fi ñetti téeméeri yonent ak fukk ak ñaar laata yonent bi di ñëw bi mu ko yabalee tamit la ñu doon tabax moom la ñu doon mottale si mooy diine l'islam rek pourtant de diine l'islam jooje bi aaya ay al yawma akmaltu lakum diinakum di wàcc ci weeru safar la wàcc nga xam ne boobu la ko suñu ni ko diine yi moom mat na tey lu ñuy araamal ak lu ñuy daganal jeex na tey la kon loolu nga gis ni kon la taxoon suñu borom bind ñu pour ñu jàmm ko taxoon mu yónni fi ay yonent mission boobu bu fekkoon ni maanaam ak kër la day mel na kon keroog ba yàlla di wàcce aay boobu ci la kër gi noppi kon kay waroon naa tax ñëpp di fàttaliku safar ngir maanaam li suñu borom wax ni diina ji tey lii la mat te loolu moo ñu fi tax wàcc te loolu moo ñuy tax ñu taxee ëllëg waaye fi mu dul ni gaafal gan ko gaafal moo tax bu safar dikkee donte loola wàcc ñetti kenn du ko ci fàttalik ndax gaafal ga nga ko gaafal nga xam ni kon gaaf ga diis na bay xaw a mëddalale Cheikh Ahmed Tidiane Serif maqaama mam doon sàq ci boromam ci weeru safar la ko suñ joxe waaye fi mu toll nii jox gam ko koy jox ak baax gi mu baax nga xam ne sëriñ bi dana koy tudd bay wax ni wàlli yu sax bu nu dajee moom mooy nekk ci seen kanam te daf ci ràññeeku mel ni ak wurus nem nem ràññi ko ci biir wàlli yu bu ñu dajee waaye borom Tuubaa moom wa kullu buqatin salaytu fiha fahiya babun min abwaabi sama yasadu fiha awliya allah ba ko gaa yi di bëgg a boole ci wàll yi daf leen man fu mu julli ñaar ràkka ba sëlmal yàlla da koy soppale ko muy usine buy defar ay wàll yu yéeg ci yàlla koo xam ne sa ñaari ràkka nag day wecci usine buy defar wàll yu kooku kuy lim wàll yu di la ca boole kooku dafa xamul dara nga xam ne kon fi mu toll nii Cheikh Ahmed Tidiane Sène gis nga nam toll waaye ba ko suñu borom joxe taxul ba tey nit ñi di fàttaliku safar ca boo ca booba ca yooyu jamono yooyu yëpp ndax gaafal gën ko gaafal dafa mel ni dafa ñëw mëddaale loolu yonente bi sallallahu alayhi wasallam feebar bi ko génnee àdduna ñaar fukki fan ak juróom weeru safar la ko daaneel mu tëdd ko 14 jours mu dëppoog li mu turam ba muy taaxaa ndax sallallahu alayhi wasallam nee na inna allaha sammaani bi sabaati asma alquran yàlla woowe na ma ci juróom-ñaari tur muhammad ahmad muzammil mudassir taaha yaasin ak abdullahi juróom-ñaari tur yooyu la ko ci borom tabaraka taala woowee ci alquran nga xam ni kon taaha ta tànk gi neuf la xël kubéer gi cinq muy quatorze quatorze jours la ko tëdd yeneen saa salaam bis bi mu gënee jamono muy fukki fan ak ñaar ci gàmmu ci bis boobu tamit ci la génn àdduna ndax bu fekkee ne feebar ba quatorze jours la ko la ko tëdd attaqué ko ci vingt-huitième jour bi soo jëlee deux jours yi ca quatorze yokk ko ci vingt-huit ba maanaam trente jours day dee weeru olof ba nga ñëw fee douze a fay des kon boo duggee weeru gàmmu fukki fan ak ñaar ba kon ci la yonent bi saa salaam génn àdduna tamit ma Baye mu saaka day wax ni bis ba mu gën jamono ci la génnaat jamono bu dellusee see ñii dañuy mag màggal judd ga ñee di ko jaale ji kon gi nga fi mu toll nii feebar boobu attaqué gi mu attaqué woo dara kon fi mu toll nii nit ñi war nañoo yeeguwaat ci màggal ndax baatu miraas la jëfandikoo te miraas moom mooy loolu nit ki faatu na bàyyi fi alal donte ay centaine de milliards lay dañ koy séddale ci ñi fi nekk Baye mu Ka ne la yow faatoo góode jamono bi ngay dund di war a soxlawaat ëllëg suba nee na maa ngi lay wax loo xam ne moom rek moo jar nit kiy dund ndax miraas moom ba ko suñu borom di wàccee ku faatoo taxoon waaye Cheikh Ahmadou Bamba indil nañu xewal gopp dafay jar ñuy miraas suñu bopp tey dund maanaam def ci lépp te mooy màggal gi ñu ne ko kañ la mu ne mooy bis ba Bamba xëyee Mbàkke baar yi tàbbi ci géej li xidmatil muxtaar yi mooy keroog ba Cheikh Ahmadou Bamba tàbbee ci géej gi ngir liggéeyal ki yàlla tànn ci biir mbindeef yi muy Seydina Muhammad mu ni xar baaxu Cheikh Bamba mu ne su koo lim te moo xaral alxajji fàdduluy mbaaxam mu ne wajj almasiri fawqa xajjin misla xajjin wa jihaad fil ajri wal yumni wa kulli fii tamaat nga xam ni ñaan na su borom tabaaraka taala ni ko nang ma defal sama tukki bi mu tolloog jihaad ak aj ci yool ak barke te borom Tuubaa nee na ñaan goo ngeen ma gis ma di ko ñaan yàlla nangu na ko juróom-ñaar fukki junni at dooru bind mam aadama ak awa ajaabani rahmaanu qabla al xalqi sab'ina alfa sana bil koo xam ne li ngay ñaan soixante-dix mille ans lañ ko nangu laataa nga ñu bind aadama ak awa loolu kenn waxatu ko ne demaare ba mujj gi yàlla ne ma ahmadu bul ñaanati boo soxlaat jëlal rek bilaa talabin bul sàkkooti yow del jël rek Eh, mooy baax baax bi moo tax suba amul sàkku di nga jël rek suba amul looy ñaan yow ñëwal jël kon nag mu ni ñaan mu ñaan suñu borom ni ko defal màggal gi mu tolloog moom waaye boo demee ci xam nga ca wasilatu box suñu borom def na ko sax ba ne ko màggal gi kawe na yooyu waji al masiri fawqa xajjin wa jihaad fil ajri wal yumni wa kun li fi tamaat nga xam ne suñu borom mujj na koo defal bisum màggal gi moo kawe jihaad ak aj maanaam kawe aj ak umra ci yool ak ci barke te fi mu toll aj màkka gu nangu lu jafe la de ndax ñetti millions yi ngay passé benn dërëm bu ci léwadi du ci nekk te fi mu boo dee góor boo armalee boo tëddee di nelaw booy sang doo sang sa bopp boo ko sangee da ngay fay alamaan soo daggee wee fay alamaan su ay matt su ay yoo ay teeñ nekkee sa bopp it amoo droit rek aj lu jafe la Sëñ Tuubaa nee na da ngay ñëw Tuubaa màggal si suñu borom defal la ci lu kawe jihaad ak aj ci yool ak ci barke mu ni loolaa di zaahir sa li lay baatin ba déglul ma wax la tuut ca baatin ba Baye Moussa Ka ni xaaral ma wax la tuut ci baatinu màggal gi mu ni màggal ga kenn mënuta xiyaas mbóotam ya ngir baam ba kenn mënta xiyaas mbóotam yi nee na màggal gi nag kenn mënta xiyaas mbóotam yi ndax borom màggal gi ay mbóotam kenn mënu ko takk borom Tuubaa foo ko natt weesu na kon kooku ay mbiram mënoo natt fi ñu fii lay yem wala fële ndax tey fi mu toll nii nit ki nga xam alalam fu mu toll ci ngay mën a wax ni ay ah, biem kat warta romb nàngam waaye koo xam ne li mu yor maanaam taxawul dafay dem kooku mënoo natt ay mbiram maanaam nu muy mel ndax kat ba ko yàlla di nattu nam ko doon maanaam tege natt yi at mu ne mu koy ful bi mu koy fay noonu la def at mu ne mu koy ful ndax mos naa wax soxna Faat Jaxate ni ko bis day damaa toog ba yàgg su borom di ma wan fay gi ma fay mu duy ko mulk juróom-ñaareel suuf bu juróom-ñaareel asamaan nee na fay gi fees ba des nee na su borom ni ma xaaral ma yóbbu ko malakoot te mulk boo ko sànnee malakoot day mel na nga jël puso sànni ko ci géej kon lii lépp nga sànni ko foofu day mel na puso boo sànni ci géej nee na suñu borom jël liggéey bi fay ko euh, duy ko foofu mu fees ba desati nee na suñu borom ni ma naa ko bàyyi ci niiru asamaan yi fu nu lay waxtaanee ma leen koy sotti bañ nopp may dooru sëwét te loolu taxawul lay yokk ndax màggal gu jot xéwal ko suñ borom di yónnee bokkut ak yi fi nekkoon te yooyu du fi jugaat mu ne ca ama talsasi la woote jurbel weeru safar te naan bu leen ma jërfal kon ama talsasi la borom Tuubaa njëkk a woote màggal gi bisu talaata la 1921 ca njaarim kon njaarim moom fa la lépp déparé moo tax Baye Moussa Ka daane la mu waxoon laa leen ni feddaleetil ndax ngeen sawar waykat bi nettaleetil mooy la mu waxoon sànq ni la yàlla defaloon kalima fi dëhri yi defal ko Ibrahima ba yàlla buur bi faratal tabaski ak tamxarit may ne ko gaaya Mbàkke bi xidmatil xadimi lil maxdumi fil bahri fard leen ila tanzimi Baye Moussa Ka daane bis bi la lamboona mbiram tabaski ak tamxarit ak gàmmu am na barke wax loolu fu mu amati ndax gàmmu rek mbi maanaam yëfi yooyu sallallahu alayhi wax na ci ay mbir ñax sax bu ca saxee ak jur lekk ca jur woowee ku naan ca meew wala mu faatu nga lekk ca ndawal la ci barke guddi googu tax na sa yaram day araamal sa wareew nga xam ne ku màggal guddi gàmmu da nga fa toog ñeent fukki fan boo fa jógee kenn du bindal bàkkaar sëñ Tuubaa ne fa kullu man anfaqa fi mawlidihi lmusharrafi maalan bi xayri sarafi walaw bi xadri dirhami fa innahu ka man xadar yowma huneeni wa sabar wa yowma badri wa nasar xayril wara mufahimi nee na boo banquee ba banque jëlal ab dërëm nga def ko ci guddi yonent bi dangay ngay am darajee ku demoon badar ak huneen waaye wa sabar da ngaa muñ dawoon a gaa yi dawoon da ngaa taxaw yow daraja yooyu ngay am ci dërëm joo def borom Tuubaa daan ni maanaam mbuut moomee nekkoon ca gàmm ba tax su borom rafaatale ci loolu su borom amal na ko def ko ci bi sama bis bi man Ahmadul Xadim muy màggal gi kon màggal gi jël nañu fa gàmm te màggal gaa nga ne moom màggal fi mu toll yim yim récupéré rek la ñuy waxtaanee mais waxaguñ màggal gi récupéré na gàmm mii toll nii moom gi nga nim toll nga xam ne géej ñi muy safee xorom am na ci waxtu woo boo fa demee dafay weex ba mel ne lem ndax neexaay gi su borom ni mu koy sottee nga xam sallallahu alayhi bi muy gën jamono nee ñeenti téeméeri jigéen ëmb nañ waaye su boroom dafa yàq yëpp daane gan gi ñëw dafa tedd tedd gog du du ganandoo kenn jamono ñëpp la yàq ba mu des moom borom Tuubaa daane suñu boroom jël na barke boobu dugalal ma ko ci sama bis bii muy gàmm muy màggal xoolal yoolu am na barke demal ci sirkul jawaaxir Sëriñ Tuubaa ba muy jàngale barke dafa nettali góor goo xam ne day bëgg a faatu woo benn doom ni ko bu ma dond doom ji déggal ko ñu dem ba yàgg doom ji gént bàyyam ni ko demal ca gannaaw garab ga ci misaal fukki million ma nga fa mu ne ko bàyyi fukki million ndax am na barke mu ne ko amul ko bàyyi soxla mu am barke nettali ko soxna soxna nan ko yow doo jël amuñu nangam ak nangam ne ko daal lu barke du ko soxla mu tëddaat ba guddi gént bàyyam ni ko boo demee ca gannaaw miir ba juróomi million nga fa mu ne ko bàyyi afi afihi barakatu ndax barke nga fa mu ne ko amul barke mu ne ko bàyyi soxla mu am barke tëddaat ay fan gént bàyyam ni ko boo demee ca gannaaw seng ba ñaar téeméer nga fa mu ne ko bàyyi ndax ñaar téeméeri am na barke mu ne ko waaw mu ne ko moom laa jël jël ñaar téeméeri jox ko soxnaam soxnaan dem marché jënd fa jën ñëw xar ko fekk ci biir jën wi ñaari peeru jamaa lii sax xëy na fàttali lu mën a ñàkk waaye li ci ëpp solo mooy jëfal rek ndax ku ci jëf yokk raw ba faw sëñ Saliou moo ko wax ñaar ñu dend kër ci fonk màggal ci ñàkk koo fonk ki ko ñàkk fonk moom du deñ mukk di gis ci ko fonk ni mu koy tiimee àdduna ak alaaxira loolu lu wér la mam ma sama jaay daana wax naan maanaam safar nee na weer la boo xam ku xamoon li ci ne soo demee ba toog amoon a def ne del weer de safar safar safar safar rek safar safar rek <laughs> ñooñu dañoo xamoon li ci nekk safar safar maam ma sama jaay fi mu doon ni talaata gën njëkkoon a màggal moo tax Baye Omar ne daana wax naan ba mujj gi talaata ju ne day rey am xar maanaam di ko màggale màggal gi talaata ju ne moom talaata ju ne day rey xar di ko waaj màggal ndax bisub talaata bi borom Tuubaa njëkk rendi lu aw xar xoolal mag ñooñu fan tolloon ci pas-pas talaata ji ne nga rey xar di waajal màggalu borom Tuubaa ngir pas-pas kon nag yàlla ñu saa borom defal pas-pas yooyu nga xam ne moom la mag ñi yoroon kon njëriñ ñoo ngi tuub gaa yi ñu ngi woote rek <laughs> moo tax xam naa ni lu ci dëng daal ngeen xam ne matadi gi la gàtt ak alluwa gi ak néew xam-xam bi ak yéene rek yoo xam ne daal amoon nañ ko rek ngir bëgg ko barkeeloo waaye li ci jubi noonu la ko suñu borom soobee. yàlla na saa borom defal tawféexu màggal gi ba maanaam euh, ñu gën koo teewlu waaw fi nga fi mu toll nii nag euh, am na yu bari yoo xam ne maanaam seytaane dafay jaar di bëgg a yàqal ñenn ñi ndax maa ngi dégg ñuy wax naan ay suba ay football day am ak diggante Real ak Barça waaye nga fi mu day am ñoo xam dañuy waaye di ci xeet yooyu ba man bi mu amee dama leen waaw ñoom lu tax fommuñu ko ndax màggal ko ñu ne ah fomm ma leen gis ngeen kon ñoom am nañ ful la fi mu toll da nga gis dañuy ñëw ba màggal bu tombeek altine wala ajuma bu dee wiir wiir daa am dañ naan fi ñukku màggal gi dem am ñoo xam bu football amee ñu ne ko fi ñukku dem am ñoo xam daal maanaam kiimaan la màggal moom bu la xasee taxee jug te bu daaw bi fekk am na ñu fa fekkoon te ren fekku leen fi yow mi yàlla may nga fekk ko da war a fexe def ci sa lépp ba même bu la fa déwul fekkul yow doo rëcc kon maanaam nañuy teewlu bisu màggal gi maanaam di teel a jug di maytu biddanti ci màggal yi yooyu dañ koy maytandiku maanaam benn bis jar naa sacrifice wu gaa yi a jug teel a laxasaayu maanaam murid yi ñëw maanaam durus ci xaside yi jàng ci alxuraan ji maanaam teewlu fu nuy jàng xaside yi loolu lu ci am solo la maanaam teewlu ko teewlu gu wér ba buñ fi jógee dañuy yëg ni ñun màggal gi tey jël nañ ci loo xam ne mosuñu ko jël ci beneen màggal loolu mooy fas-fas bi kon yàlla nañu saa borom defal tawféex ñoo ngi jégalu ci kàddu yi Café Touba gaa ngi nii sëñ Abdourahmane Cissé dafa xëy suba dem di nuyu borom Touba ci njaareem mu toog ba yàgg borom Touba ne ko de mu mu ne ko lu tax Abdourahman mu ne ko ah Mbàkke day jamono ma jàpp nee na borom Tuubaa ne ko Abdourahman xanaa yére bi moomoo ko mu ne ko ah, kay mu ko soo xamul ne ci xëy suba bañ a naan kafe dana jar naan jaay sa yére yëpp naan kaasub café kon nag café Tuubaa waaw café Tuubaa rek <laughs> وصحبه في الحال والمال وخذ له خير سلام لا يريم تقود لي منك مرادي يا كريم barkeb borom Tuubaa barkeb borom Tuubaa barki borom Touba xanaa di sant sëñ Fallou Bichri ndax lii moom du guléet daanaka chaque at daf ñu koy may te daf ñu koy defal te moomatul boppam ni ma ko doon wax sànq xat-xat yi bëri na ñi ko soxla bëri na waaye ñu ngi koy ñaan di ma koy faral di wax rek ni ko fu ñu mës dégg sëñ Sam Mbaye yàlla nga ko gàcceel loolu ndax dem sëñ bi amul ay tànk ginnaaw ay tànk kalam la am fu ñu fu ñuy dénk tudd sëriñ tubaar rek yàlla nañ fa dénk sa tur ci sa barke turandoo ci barke di safar xanaa di tuub ci kàddu yi te di wax ne mbooloo bi yëpp ñu ngi lay sant ci taxawaay bi ndax loolu tàmbalewul fii soow la tàmbale da ngay bàyyi sa itte yëpp jóge ba njaareen ñëw ci daara ja ngir waxtaan nañu ci sëriñ bi te bëri na tout tànk yoo xam ne seen pas-pas ci sëriñ bi ci yow la ko sëriñ bi jaarale te loolu moom ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax di ñaan yal na la sëriñ bi taxawu yal na la sëriñ bi taxaw yal na bi taxaw si barkeb jër bi safar ñu ngi tuub na ah waaw jëruñ nee na moo ne digal la moo ma ne na nga màgg na màggal gi mate waaw yàlla nga màgg na màggal gi mate balaa déwén tamit waaw yàlla nga am ak topp barke Sëriñ Tuubaa <laughs> kaay leen sant le ma yàlla ndax xam na ni ak yokk gi gaa yi ko bëgg ci cant rek la mën a jaar léegi nag bu ko defee bu dajee ñun di sant yàlla ndax fi mu toll xam nga lan moo lay wan ni maanaam màggal gi pour ñu na tey lii lépp ñoo ñoo koy lekkat bu fekkoon dañuy ñëw rend xar yi yóbbul ko fii woor di ndox rek woor waaye fii luñ fii rek ñoo ñu naan sëñ bi daa woote ndimbal yërmande jaam ñi mu nekk moo tax fi mu toll nii ñun la bëgg a dimbali bu nu cantee mu jël cant gi yóbbu ko ci suñu borom suñu borom da koy nangu nangu gog daf koy dolli te ba suñu borom bu koy dolli daf koy dolli ci darajay Cheikh Ahmadou Bamba du ko dolli ci ñun suñu daraja ndax ñun dañoo manqué di bu nu sante yàlla na mu war a sell ak na mu war a sakkane du ko mat ndax suñuy bàkkar ak suñu ñàkk teewlu waaye Cheikh Ahmadou Bamba lu mu mottali bu mat te duutul wàññikooti bu ko yóbboo suñu borom bu ko nangoo rek la in shakatum la asidannakum moo moo tax murid bi ni muy dolli ko keneen du dolli ko noonu ndax moo tax mu sañ ñu ni ko yow 18 safara nga ne di ñëw mu ni man duma xaar 18 safar de waaye damay gàttandu weer wi séntu ko def ci mboolem lu ma am te safar ga la ma ca sasu ci 18 safar ga mooy ëpp lii dama koy am ndax suñu borom ay waxam du dañ kon nañ xam ne màggal gi borom Tuubaa dimbali gim ñu bëgg dimbali képp a tax maanaam mu ñu koy sant naan kaareel ni santale ma yàlla ndax moom ba muy sant yàlla booba ndey baay amul booba yàlla bindagul moom aadama bindagul kenn mësta dañ ci sant yàlla mësta deñ ci julli yonent bi sallallahu alayhi wasallam mësta di jaamu yàlla moom waaw yaqulu man laysa yazaalu yahmadu xoolal loolu ciy wax mooy ki nga xam ne mësta deñ di sant malikuhu boroomam mësta dañ kon kay ci doy na sëkk doy na sëkk bu fekkee yonent bi saa salaam la xoola ca nax ji la mu ubbee xaala ibnu cheikhi alazi laa yahmadu fi nafsi siwasmihi muhammadu nee na man alhamdulillahi aljazil ni'mati ala muraji ma